wax loi d'amnistie mhm. est-ce que war nañu effacer l'histoire cette séquence de folie là mhm. gratuitement comme ça mhm. est-ce que c'est possible ah, xam on est très à l'aise ici parce que nous avons une initiative. absolument Nous suis le premier ministre et wala député

ñu xam nañ ne keneen bu ñëwee mun na koo jël teg leen loolu wala mu teg leen lu ko raw moo tax ñu bëgg effacer lépp mais effacer boobu pour man c'est injuste. Mhm. pourquoi c'est injuste parce que xam nga doomu aadama mënul ñëw di exercer droit constitutionnel boo xamante ne yow yaa ko garantir constitution bi am ay articles yu ne doomu aadama dafa sacré te état bi dafa am obligation protéger ko. Mhm. ak ñoŋal ko yow nga ñëw daal seen kaw ba jël seen bakkan. ak Bakel ni mu foré dëkk boo xamante ne da nga signé euh, ay charte yu bëri ci àdduna bi war a respecter droit de l'homme donc soo rayee ay nit nga dem ba bëgg def ay jeu pour wane askan bi ne parti bee moo violent dem ba dissoudre ko waaye yàlla def organisation yu gën a mag ci monde bi mu mel ni Nations Unies seen site officiel ñu bind si ne takk deru Sénégal ñooy rey askan bi waaye aussi ba def ay montage di jéem seuf miri mbiri Pastef mhm. gis nga chaîne yi gën mag ci aduna bi mhm. woné les vraies vidéos woné des nervis aux côtés de la police nationale woné ay ñu bëri ñoo xamantene amuñu ils sont pas investis de la de la de la force publique mhm. jël ko diko exercer ci askan bi gis nga parcelle en 2021 xalé bi yoré drapeau taxaw ñu vise ko ba mu neex assassinat dóor ko bal mu daanu c'est des choses yoo xamante kenn mënu ko justifier te bañ koy def ñom amone possibilité arrêté ndax président Ousmane Sonko def na vidéo yu dul jeex pour arrêté leen té 2021 Pape damay fàttali ni ci ne fi xeex bi tolon bu ñu ben fan wala ñaar fan Macky Sall ñak nguuram. Mhm. loolu ñëpp xam nañ ko. Mhm. ba Ousmane Sonko génnee dafa né bu ñuy gañee nguur gi nañ ko gañee ci yurné yi bobu xanga mo mo jéku jekku sax génn di dem plateau jour boobu mu né ma euh tel document envoyé mako parce que sëñ Mountakha dafa ma wara envoyer ay émissaire mom mu déglu sëñ Mountakha nangu ñu baisser la garde président Macky Sall nekat mais après gis nga dafa ñëwaat def yu injustice mu def yëpp. mais aussi brandu lañ fi à l'époque hmm. pour juste avertir la Sénégal bi ñu memorandum euh ñun tam tëju nañ di tontu seen memorandum moy bi bi ministre bi doon présenté ñu bindu suñu memorandum tontu leen documenté ko nak vraiment def ci vraiment hmm. lepp li nga xamantene mo ci war brandir plainte bo xam ne dañ ko bëgg a yóbbu au niveau international mais plainte bobu mosoo ko dégg pourquoi parce que dañ doon def lolu pour yaakaar ni président Macky Sall dina taxaw mais taxawul mu djegi fofu mu commencer nak vraiment di djel bak chaque manifestation gay djel bakam ni chaque manifestation dem ba ñuy wax ay 30 ay 40 ay 50 50 80 gars, gay nak mu djé djel mbiri déposer ko parce que pays bobu nonu plainte bobu c'est une plainte qui est, insolite. est vraiment beaucoup de ci li ragal lo nit aussi mm -hmm. indépendamment de ça am

moom moo ko moom prérogative pour def ko. ñun on n'est pas d'accord et on n'est pas demandeur ñu ciy laaxaale turu Ousmane Sonko. waaw Ousmane Sonko n'a jamais demandé ñu defal ko ko Ousmane Sonko ne sera jamais contre euh, pour pour pour l'injustice. Mhm. d'ailleurs ni ni qui bi loi amnistie loi d'amnistie bi yàgg na ko dénoncé bi nga ko commencé wax boobu kenn déggul président Macky Sall di ko préparer pour dugal ko. Mhm. ne ñoom dégg naa sax loi d'amnistie bi rédigé nañ ko ba pare mais munoo ñëw ñu rey ay nit ouvertement yow mosoo sax taxaw jaali leen c'est-à-dire que ñu conseil des ministres day ñu mm-hmm. Mais conseil des ministres bi gis été loi et dans le même paragraphe nous bindal dit, non d'assister assister assister les wax mais à côté de ces personnes ils ont mm-hmm. des centaines de personnes blessées mutilées ils sont impactés ba prisonniers politiques yi nga xamante ne ils les ont brisés. Mhm. ñu si bëri dañuy gérer nii mais <laughs> buñu demee bay wax. ah non voilà suivi voilà psychologique am na ñu soxla suivi parce que am ñoo xam ne am ñoo xamante seen ay waajur ñak nañ ñak ñàkk seen soxna ñak seen lepp lu ñu ndax xex pour seen dëkk te pourtant defuñu dara lu illégal donc je crois que état ñom dañu wara dem ba seen euh, jusqu'au bout de la logique. Mhm. c'est-à-dire que état bu sa askan ñaké émeute am wala aléa yu mag am. Mhm. c'est-à-dire que

waaw cest ñaata rapport mo fi am ñaata rapport mo fi am. est-ce que da c'est les 1000 milliards de Covid. de Covid mais mais 1000 milliards de Covid yoy non. Hmm. bo demone ci rapport yi buñ ko toppoon jël li gars jël delloo si ko duñ soxla ab xaalis pour Covid bi 1000 milliards yi mun nañ nañ ko jëlé foofu parce que lu ëpp gars lu bol nañ ko foofu. c'est-à-dire que y a des centaines et des centaines de rapports yu nelaw foofu ku mel Ousmane Sonko sax taxaw bés prouver leen né 94 milliards doomu aadama jël nako fi fii biir Sénégal lu mel ni OFNAC di kuréelu état ñëw dëggal ko ci pourtant déggoo ñu ne am suite bi wala amna suite beulé non la hmm. amé sent ay rapport yu ak plusieurs. Euh, rapports yu mag am fi sax à un moment donné le procureur mu def soudou oreille bagn ñu mujjee dem doyage des juges constitué partie civile pour forcer leen pour procurer mais xam nga après non Sonko amul matière à agir c'est-à-dire que lu nekk def nañ ko pour taxawal démocratie pour taxawal vraiment kuréel yi nga hmm. xamanté mo moo war bànqaas yi ngank euh euh doxu doxinu réew. Hmm. bu sérieux

le 15 euh, juillet je crois le 15 septembre septembre. Mhm. ñu xëy ma non yow dañ avocat mais jox ñu explication. non parce que nous avons nga voilà parce que voilà voilà en fait c'était la stratégie. parce que tu avais déjà fait. j'avais à 7 mois. j'avais 10 mois j'avais 10 mois. 10 mois les voilà parce que déposé demande de liberté provisoire. Mhm, je euh, chambre d'accusation avocat au état l'avocat général ne comprendre boucle dossier Fadjoulou. Euh, procès procès déposé LP rejeté c'est-à-dire que quoi. Mhm. Euh, bi yoon dama naan topp ordonnance procureur bi mais bii ñëw jëleen ay disposition ngeen bàyyi ko clairement noonu la leen wax man avocat yi rapporté ma ko. Hmm. bon ma am yaakaar ne non peut-être comme que lii am na buñ dëggaale te LP nañ kii mais semaine bi stop ou 10 jours yi yi stop yi stop ci lañ ñu woo notifié yi nañu dañuy yokk affaire yi te li ñuy yokk noonu. Hmm. bu fekk na j'avais déjà fait 6 mois à Rebeuss. ay fekkee woo ko fekkee woo ko fekkee woo ko dama toog ba rek ñu yokkal moo ko noonu non lañ koy non lañ jëlee jomaay dugal ko ci biir yokal ko momit yokal yokal ko momit it président Ousmane Sonko aussi noonu lañ lol lañ ko lol lañ ko lol lañ ko lol lañ koy kiiwee mais yëg je crois que bu ñëwee mais le mal est profond hein. ah très profond tooñ kese le mal est profond tooñ kese loolu togn la quoi non togn la et puis ku melni waxuma sax président Ousmane Sonko moy sunu mak mais dama né ku melni ni jomaay ku mel man administration bi lañuy liggéey ay directeur lañ ay responsable lañ fi ñuy liggéey ñëpp ñu xam c'est-à-dire que euh, du nit yoo xamante war nañu mëna daw bu ñu génnee c'est-à-dire fooy dem Sénégal lañu am c'est-à-dire que nekk si administration que salaire. c'est-à-dire que xam fu ñu xam suñu c'est-à-dire que booy may liberté provisoire te nga yàgg ko may ay nit tabaski ñëw ay agresseurs sax nga génne leen yu dul salaire. c'est-à-dire que su boobaa war nga mën a sax may ni ci hmm. wala nga may leen bracelet wala quoi que soit mais bloqué la foofu leen intéressé woon moo ñu téye ñu foofu moo tax bi ñuy génne aussi gis nga ni ñu génne nga xëy benn jour amoo ci benn yaakaar yow da nga ñëw rek ñu ne la génnal non man dama ñëw avocat bi ñëw ne ma non fajulu da nga kii avocat maître Babacar Ndiaye jaar na fa avant waaw ñu toog mu ne ma bon seen affaire yi mooy kii de gars yi ñu compilé seen dossier yi da ngeen di génn quoi ma ñëw dugg même pas deux heures de temps ab deux heures de temps maa ngi fekk ni Ousmane Sarr ñu entraînement ma ne ah am na benn nouvelle bu neex de avocat maître Babacar Ndiaye nee na ma dañuy dañuy gars yi dañuy commencé di génn quoi même pas deux heures de temps nous commencé ils amènent je crois une liste de presque 400 personnes je crois donc annoncé gars yi dañuy man lendemain bi la génn sax mais. Mhm. jour dois vous libérer, ñu libérer, bëree libérer, Oui, Mon libération ce que je disais euh, quand la vie d'une nation se résume entre palais de justice et rebosse, prison ça c'est problématique hein. alors.